asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk fii euh, dakarnet point com comme ni ma waxee defee chaque jour du dugg di wër artiste ndaanaan yu nekk fii Sénégal te ñu ciy dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal muy Séni dañ koy jox kàddu mu nuyoo rek après ñu dikk ak moom ci waxtaan Séni ñu leen di di la ziar. mais Abdou maa ngi lay ziar di ziar ne ñoom ñooy stand Dakarnet et voilà Séni li ñu lay laaj mooy euh, musique bi nan la dikkee ci yow. waaw mais musique bi. man sax mënu ma ko expliquer parce que man dama nekk nit koo xamante ni mun naa dama culturel et loolu c'est depuis bu ma nekkee xale man j'ai fait du cinéma waaw j'ai la grande série C'est la vie bu jaar TV5 la série panafricaine je fais partie des acteurs principaux euh, def naa ay séries yu bëri yoo xamante ni ay films yoo xam ne tamit Europe la doon daw dawul Sénégal parce que man aussi j'ai toujours été comme ça mosuma bëgg benn affaire boo xamante ni c'est après loolu def naa journalisme communication nekkoon naa ci télé nekkoon naa ci rajo pendant des années woy bi moom damay woyantu depuis ma nekkee xale parce que man j'ai grandi avec la musique nit laa koo xamante ni damay déglu damay gëstu damay bàyyi nit ñi xalaat xel yi jox ma ma jëriñoo c'est-à-dire nit yi suñu defee dara j'ai envie de découvrir le fond lu may ci forme bi dama sopp donc comme ma nekkee xale dama bëggoon musique mélomane laa damay fawantu di woyantu sama yaay daf ma daan wax yow doo bëri ay doom parce que kuy woyantu doo bëri doom après benn jour dafa sama benn xarit moom dafa demoon benn instrumental moom mi ngi commencé ci son xale bi mooy xale bi laa bëgg moom moo may yëngale tout mhm. léegi mu def instrumental ma ne ko damay tegu si si si si bit bi mu naan ma yow lan nga mën ma ne ko d' accord da ngay wax rek am ma jël instrumental bi dem studio du woon sax studio sama benn kër xarit boo xam ne moom dafa amoon benn genre table de mixage ak benn micro chambre étudiant bu nekk Paris ma dem. tegul ci son bi bi ma tegul ci son bi ma yónnee ko samay samay contact whatsapp mm-hmm. mais pod bu pod et Marichou Pa Omar sama frère la ma nuyu ko du passage moom moo jël son bi dugal ko YouTube ab ah, bi mu ko dugalee YouTube ma gis vue yi di naaw gars yi di ko kiffé après ñu may woo de partout waaye lu son naa ni naa naa et tout mm-hmm. ma ne comme gars yi bëgg nañ kay te man du inspiration bi ñàkku fi mm-hmm. te passe la boo am xam ne boo amee loo boo amul loo def nga def parce que man je tiens à rek laay def man. juste en gestion des collectivités territoriales man je je fais mon master en sciences politiques donc musique bi damay am benn temps libre sama heure creuse yi ma consacré ko ci musique bi te comme inspiration bi ñàkkul macha allah je me ba euh, bah pourquoi pas def benn affaire defaat beneen affaire defaat te def naa yeneen affaire yu gën a graaw yu gën a doy waar ay yëngaloo ma nii ah, temps moo amul lekk sinon ma. <laughs> si ñu gis tamit ne ah, loolu yëpp ah, yow yi nga ne moom nga boole ñu la na nga ko mën a composer ak musique ndax musique dafa metti waaw musique dafa metti parce que ci musique y a les uns dafa metti ci xëy na koo xamante ni da nga ko jël def ko benn affaire bu extraordinaire man pour man musique foo la li nangaloo daan naan way wax ju ñu suukar la je pense que foo la mooy su fekkee ne lii nii da ci jiital sa passion mooy amour bi nga am da nga ci jiital génne chàq bi li nekk ci sa xol pour li nga parce que olof nee na lu jóge ci xol ci xol lay dem bu fekkee ne loolu rek nga ci jublu mais studio sax soo fa nekkee da ngay foo et puis foo boobu la nit ñi di bëgg si seen bi nga xam ne fa la interaction bi di am mooy fi nga xam ne da nga fay taxaw jàkkaarloog public bi di way ñu ne di leen koy jox ñu koy yëg da ngay foo parce que nit ñi lu fa nii la bëgg instant bi nii y' a trop de stress donc man kiiwul quoi méttiwul. aussi ñu gis ne euh, nga génne single mu def buzz xale yu jigéen ñi Instagram YouTube ñëpp di ko sinab di ko challenge léegi est-ce que yow bi ngay toog di préparer single bi est-ce amoon nga yaakaar ni euh, bu bu génnee dina def noonu. awma demi mesure zéro wala cent noonu laa mel je suis une personne comme ça su may def dara dama ci dem ak xol et à fonds et puis man je fais une duma xëy dugg ci dara pour loo xamante ni dama ci dugg nii pour dugg ci dama jàngat musique bi xool fi mu toll bu njëkk da doon xool tey ku mel ni Souleymane Faye wala Omar Pène wala Youssou Ndour da ngay xool richesse bi texte bi di am nga xam ne tey dañu lay jàngal yee la ne la jaaral fii defal ni kii ci biir musique teg ko ci ay mélodie nga déglu ko son bi neex nga déglu ko mel ni Abdou Guité Seck parolier bu mag la dafa mën a bind day bind lu neex mais boo jàngatee musique ak fi ñu toll nii par exemple suñu air bi ñu toll nii musique fi mu toll soxlaatuñu loolu parce que les gens sont stressés li ngi leen di wax ci conseil yaay wax nañu ko papa yi wax nañ ko maam yi wax nañu ko livre yi bind nañu ko acteurs yi joué nañu ko donc musique bii fi des dañu bëgg mu nekk ñoom seen moyen d'épanouissement seen source d'évasion et pour mu nekk loolu foog mu fëni mais loo xam ne da nga koy déglu reetaan wala nga déglu ko sa xol neex léegi à la lumière de toutes ces analyses soo paree da nga naan tey nii su ma leen bëggee laal public bii foog ma def loo xamante ni xale yi sax dañ ciy foo mag ñi di ko kafe ñi gën a mag dégg li may wax mooy tey boo tegoo ci rythme bi da nga jël benn affaire boo xam ne naan na nga xam ne xale bi loolu da ciy mën toppaat di foo te et puis réussi parce que chaque jour ma jot ay lu ma 100 vidéo yoo xam ay xale ñooy wayaat bi yaa ñi gën a ndaw jigéen ñi di ci foo di fecc mag ñi kontaan ci ndax jubóole na ay sëy yu bëri donc analyse la booy def rek bien avant ngay dugg ci affaire bi moo tax di nga am njort ne peut-être su génnee nit ñi dinañ ko bëgg. su ñu gis clip bi mu naaj si rafet macha allah ñuy laaj loolu noonu yow li nga wax yépp ci biir singal bi est-ce que yow da nga ko dund. dund ma ko pour clip bi wax naa la j'ai eu affaire du cinéma man maa def propre réalisation clip bi donc am naa benn copine bu nekk France Femme ma nuyu ko du passage Femme Mbaye donc ñun ñaar. ñoo xalaat ci ci clip bi et ñu def ko gel bi nekk ci clip bi aussi Sénéba mooy ki ñuy wax sama jabar la <laughs> donc dama koy nuyu moom aussi de passage maak moom ñoo joué ndoo dans C'est la vie waaw moom aussi c'est une grande actrice et voilà ñu ñu ñëw comme équipe la groupe nañu comme dañuy toog suñu kër nii añ ba pare waxtaan ka foore on se dit ouais on le clip na lañ na na nii lañ koy defee caméraman bi on est une équipe dañu am benn équipe bu tudd The Back Production donc ñun ñooy defar suñu bopp ñu xalaat ne nii la ñuy def nii la ñuy def nii lañ koy tegee te yi lii la ñuy sol lii lii lii on l'a tourné en une soirée. kon ne jàpp ne yow sa équipe bi yëpp yow maanaam équipe nga yor quoi équipe moo réalisé affaire yi moo ko teg. waaw équipe nanu yor ñun daal nañuy foo gars yi di bëgg hmm. waaw. kon nu ko déggee ni mu ko waxee dañuy foo yi di bëgg instant yii nii mun na ne neex na ko parce que artiste la mais est-ce que mën xam sa début nan la demee woon. franchement aw ma début comme ni la ko waxee comme début de carrière ci musique affaire yooyu mais aw ma début moo naan bu njëkk bi dama ko def ñu dugal ko YouTube view yi cartonné nit yi di ko seetaan. ku nekk am na début mënoo toog ne yow euh, sénégalais nga te amoo début. non su ma la waxee ne la aw ma début carrière mooy genre man damay def pour def je fais de la musique pour sama bopp ak pour nit ñi mooy tey xam nga man nit laa melomaan laa damay def loo xam ne man mii sama bopp su ma ko dégloo damay kontaan mooy lu neex. parce que man xam naa dama am oreille musicale léegi nag loolu moo tax ñeneen ñi am oreille musicale comme man tam dañuy bëgg son bi mais comme man nekkuma Sénégal dew ma fi wayu jiw ma mbapat dew ma dugg ci soirée yi di way def ma leen ak leneen moo tax man la aw ma début contrairement ak sama frère yi nga xamante ni ay jàmbaar lañ je les salue de passage dañu dañu dañu mbapat ci way dañu ramper def ay yëf par rapport ak côté boobu awma lu ma expliquer parce que defuma loolu yëpp faut être franc la vie man defuma loolu yëpp. daal mën nañu jàpp ne dafa ñëw rek yomb ci yow quoi. yomb. yomb lu yomb moom amul mais. moo taxit ma yàlla la mooy sa débuté. mais genre man ni ma débuté wax naa la ko toog yu am benn instrumental. le son xale bi je l'ai écrit en quatre heures de temps nga gis ko mu def ko ma def ay temps d'arrêt man noonu laay bindee di def ay point c'est-à-dire point par point def poésie mooy ma wax ne par exemple. Euh, lingeeru kër burukaaf laa yor doy na waar dal naa ci xale bi dafa may jommal ma ne altine lii lay def talaata lii àllarba lii def ko point par point après ma ñëw ci le matin le soir na la ñu na naa après def ñaari refrain son bi nit yi bëgg ko c'est ça en fait genre rampe wu ma dew ma ci ay studio di raam dew ma aw ma maison de production def ma yooyu yëpp moo tax ma ne la li ma la jot a expliqué loolu mooy début bi en fait. parce ñu gis succès bi ñu kon boo déggee ma waxee foofu maanaam tey single bi am na fu la yóbbu. maa am na benn niveau la yóbbu ba tey boo génnee mu ne nañ la sax kaay woo la ñaan la foto affaire boobu noonu foofu laay waxee daal. non loolu moom man en fait xaw ma ko woon sax. mais tey ci loolu la la waaw mais comme ça li ma bëgg expliquer mooy man xaw ma woon ne Sénégal toll naa fi foofu noonu am naa fi benn notoriété bi. Mm-hmm. man loolu xaw ma ko woon parce que. Mm-hmm. par exemple bi ma bi nga xamante ni laa commencé musique bi. Mm-hmm. dama ko def pour lu fëni mooy comme li ma la expliqué. bi ma ñëwee Sénégal sama yoon bi su ma génnee ci mber bi xale yi dañ may topp di woy mag ñi dañ may woo di ma ñaanal maire yi dañ may woo di ma ñaanal jeunes yi dañuy photo ak man affaire yooyu noonu man comprendre ma ko woon sax ñoom man mag nit ñi ñoo ko découvrir andoo dama ñëw Sénégal gis loolu et man du changer samay habitude non man dof laa man <laughs> sama carax laay laal génn ci mbedd bi dem sama yoon man damay romb ci mber bi sax yenn saa yi dama naan nit ñi dinañ ne kii dafa ñàkk kersa ndax nit dafa may interpeller fekk maa ngi ci beneen affaire mar kii ma waaxu am bi ma demee fee laa naan chet man damay fàtte damay fàtte ni par exemple def naa lu tax nit yi war ma xàmmee si mbedd bi xam nga ma la wax dama koy fàtte donc man ma koy gérer au calme quoi loolu kii wu ma. mbokk internet yi seetaan que li ma lay waxee rek single bi la lu ñëpp xamee est mun nga cee may mbokk internet yi tuuti rek. kuy wut jabar bu ko coppati ne ko riix ci digg ba na rafet ni sama bos na rafet na rafet ni sama yëf jongoma ràññee nañ ñu fu nekk ci ay yoon mu ñël ma bu baag léegi yàgg lool mag moom kenn mënul bàyyi sama room mu jàppale ma ba ma doon kii ma doon mënatuma xool beneen jigéen mu saf ma su ma jaaxlee fu ma gëstoo taxawu na mat ma yaay booy di ma tete fii kekk la nen du fi bonde booy yi jarul nga may charme yëngaloo ma bul ma jéem a ruube yëngaloo ma xol bi benn la woon joxe naa ko eyi jarul nga may charme yëngaloo ma. Wally Seck ak di Diop. problème bi coow li am na bari na ñu yow nag loolu nan nga ko gisee en tant que musicien. àdduna lépp dafa am hiérarchie tey boo duggee ci société entreprise dafa am le directeur am le le sous-directeur am secretaire général am nanani naa ba ñu wàcc ci ouvrier bi gën a ndaw. boo duggee ci kër dafa am le le patriarcat baay muy ki nga xam ne mooy chef famille bi taaw ñëw rakk topp te ñun suñu culture dañ naan ñu na mag jiitu rakk topp pour man musique bi loolu kese la nañ ko jàngatee noonu na mag jiitu rakk topp. mais na nga gisee ñoom ñaar ñëpp génne même euh, album ci même jour. bàyyandoo même son bi ba mu def coow lu bari li yow nan nga ko gisee. mais comme ni ko ñëpp gisee dañ jékki-jékki dégg ko dégloondoo ko et tout ñu def le même son le même truc après nit ñi déglu ko. analyse bi nag nañ ko bàyyi fanaan ñi nga xam ne ñoom ñooy fan yi ñoom ñooy déglu di wax mais man mhm. sama propre point de vue mooy na mag jiitu rakk topp c'est tout ce que je peux ñoom ñaan ñëpp ay waykat lañ. mais gisoo ci ñaari groupe yëpp amul ak amul loo xam ne moo war a génn tey jii pour dem pour tas ko pour gars yi mën a xam ni kii diw jours bi lay génne som jour bi lay euh, way bii lay way. waaw mais xam nga kenn xamul ça se am na ay top ci benn groupe koo xamante ni moo dem ne kii lii lay war a def son def ko mën na nekk tamit coïncidence. mu tombe ñoom ñaan ñu woyandoo ko mën na nekk tamit deal ñoom ñaan ñëpp waxante ne lii lañ nar a donc kenn xamul. pourtant maa ngi xëy dégg ci nekkul deal. yàlla yàlla rek xam kenn xamul. li mu am daal au fond des choses. fi mu xewee ak li ñi ko def ñoo ko xam. mais man sama point de vue par rapport ak situation musique sénégalaise bi mooy na nekk hiérarchie na mag jiitu ak topp c'est comme man mu xëyoon naa damay jiir mbagg Youssou Ndour damay wekkee kon ki nga xamante ni mooy le ju mbalax ki nga xam ne moo def lu nekk si àdduna nga xamante ni tey turu Sénégal am na fu mu yegg Youssou Ndour bokk na te ñi tax mu yegg foofu soo demee di ko jiir mbagg pour ñuy wax diw ak Youssou nduur da nga dof